li gën a fës ci biir euh, internet bi ñetteelu fanu tournée économique euh, bu njiitum réewum euh, Sénégal Macky Sall moom doon amal lekk foofee ca Kédougou tey ci suba nag dafa xëy ak naqar bu méttee métti boo xam ne daal dinay dal lekk mboolem taskatu xibaar yi muy suñuy naataango yi liggéey rek foofee ca Leeral TV bokkoon nag ca cortège boobee nag bu njiitum réewum Sénégal waaye nag dañoo def ak accident bu méttee métti ndiki tey ci suba benn camion moo daal di dal rek kaw ba faat nag ñett ñoo xamante ni ay employé lañ euh, foofee ca leeral TV bokk na ca benn journaliste euh, benn euh, caméraman ak benn chauffeur ak lu tollook ñaari blessé yu métti métti ca biir blessé yi nag bokk na ci benn dambu bu yooyu turu Aminata Sow ba jamono ji rek ñuy wax ak accident bi métti na lool ba ki nga xamante ni rek moo di chauffeur camion bi nga xamante ni rek moo dal ci seen kaw jamono ji rek ñu koy déglu ca brigade routière bu Tambacounda muy nag accident bu méttee métti boo xam ne dal na suñuy naataango nekkee foofee ca leeral TV 24 actu nag di ko jaale képp koo xamante ni rek yaa ngi liggéeyee foofee ca leeral TV. ci tournée économique boobu nag ci la ñuy daal di dese ni gis nañ ne nag njiitum réew mu euh, Sénégal bamu mu demee nag foofee euh, ca Koungheul ni mu ko yaakaaree woon ak ni mu amee euh, bokkul mu sukkandikoo rek ci leeral TV ndaxte rek ay perturbation moo daal di amoon rek ca boobule convoi mu nag mu mel ne ñi nga xamante ni bii rek ñoo nekkee ca diwaanu Koungheul lañ doon sànni nag ay xeer cortège njiitum réew mu Sénégal. ñu àddu ci leneen mbirum euh, Pape Ndiaye du journaliste foofee rek ca Walfu TV ñu gis ne nag dafa am jafe-jafe ak euh, polisu Sénégal ginnaaw rek ba ñu ko jàppee ndiki le douze mai bi ñu génn boobee ba tey rek mi ngi soog a janoo rek ak juge bi niki tey ci altine ji waaye nag procureur ba dafa daal di rek bëgg ñu tëj un an ferme kii di euh, Pape Ndiaye ginnaaw rek ci mbirum yi ba ñu koy daal di toppee ci fàttali rek kii di Pape Ndiaye jotoon naa jox ñi nga xamante ne bi ñoom la séq seqal mbir mi daal na leen jotoon na leen a remboursé seen xaalis waaye teewul ba tey jii rek mi nga am jafe-jafe ak ñoom ba ci noonee rek le procureur bi daal di bëggee rek ñu tëj ko lu toll ak un an loole loolee nag amagul lépp lu ci fasaat dañ leen ko laat ci suñu yeneen jotaayu xibaara ci mbirum yoon la ñuy daal di desene gis nañ ne ki nga xamante ni rek mooy Baye Modou Fall ñu gën koo xam rek ci Boy Djiné ak ginnaaw ba mu évadé ca maison d'arrêt et de correction bu Liberté 6 niki démb nekk na mbir mi nga xamante ni rek moom la ñuy gën a waxtaanee ci réseaux sociaux yi waaye nag kii di Boy Djiné ginnaaw ba mu defee li ni mel dafa génn rek def ab audio na moom la mu namm rek ca mbir moom nekkul ne dafa ragal euh, police ragalul benn yoon a euh, ko tëj waaye nag lam ci jublu moo di rek mu ko doon dund foofee rek moo tax rek mu daal di génn ah, def li ni mel ndax nee na daal dafa jot ngir dossier bi la ñu daal di koy ah, vidé nee na rek demul fenn dawul génn réew mi mi ngi fii ci biir réew mi waaye du wax benn yoon fi nga xamante ne bii moom fi la nekk tànk rek dossier boobu lee génnewuñ ko ngir àtte ko mu xam fan lay ah, féete nee na moom mi ngi toog di déglu ay avocat heure buñ ko woowee rek ne ko jot nañ ci dossier bi moom moo leen di jiitu rek ci tribunal ba ngir ñu daal di koy àtte ñu xam nag fan la pënd ba uh, wuree dañu koy jeexalee rek affaire Abdou Karim Gueye alliance Karim Xurum Xaax ginnaaw rek ba mu fanaanee ca commissariat central uh, bu Diourbel uh, moom ak ñetti xaritam waaye nag bàyyi nañ leen niki démb rek ca dimanche yi buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bii di Seneweb moom nag Abdou Karim Gueye la woon ak Ousmane Sarr Abdoulaye Thomas fay ak Bina Gueye ñoom nag daal nañ leen di bàyyi niki démb bi ay 11h jotee liñ leen jàppee nag moo di dañoo daal di def benn manifestation non autorisé fële rek ca siège Pastef bu Diourbel ñoom naka lañ wund naka ca boobule manifestation mooy dañu doon exiger ngir ñu libérer détenu politique yooyu nga xamante ne ni arrêté woon nañ leen ci mbirum Ousmane Sonko ak kii di aji Sarr loole taxoon rek ñu daal di fanaan foofee euh, ca commissariat bu Diourbel waaye nag euh, bàyyi nañu leen waaye nag ñi nga xamante ne bi ñoom lañ doon defal li ni mel euh, bàyyee guñu leen li rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig dajalay doon ba ëllëg ak jàmm Thank you.